ba mën a jàng alquran njàngin mu wér ci première année daara moderne maanaam at mu njëkk ci daare alquran yi ñu tuddee daara moderne ah, kon ngeen eh, bàyyi ci xel yéen ci ànd ak seen mbokkum daara sëriñ Mor di kenn tamit koo xam ni mi ngi jiite daara kon tey ngeen bàyyi xel bu baax a baax suñ bindum ñaareel muy deuxième leçon bi xaraf yii lañ bëgg ngeen bàyyi ci xel dangeen ngeen ko bàyyi xel nag maanaam bind bu njëkk bi bu ngeen ci bàyyiwut xel rek tout bu bu ñaareel bi day des waaw da di fexe li weesu ngeen xam ko xamin wu wóor mooy tax bu bii ñëwee rek doo doo ci am benn jafe-jafe kon Euh, tey suñu jubluwaay liñ bëgg mooy nga xàmmee daal zaal roo zaay siin shiin sod dood kon nanga xool bu baax te dégluma bu baax xaraf bu ne niñ koy jànge aywa xool leen yéen ñépp laa wax nag def def leen ci seen xel bu baax xool leen bu baax te dégluma bu baax xoolal araf bu njëkk bi nga xool ni mu mel mhm. amul benn tomb nag daal daal daal mhm. aywa bi ci topp zaal zaal zaal bokkuñu na bàyyi xel daa ak zaa zaa sa cat làmmiñ day génn nga mel ni lu ko ci xaw ba bas tuuti zaa zaa bokkut ak daa daa zaal zaal aywa bi ci topp roo roo roo bul wax raa raa raa ah. roo nga bàyyi ci xel bu baax aywa bi ci topp zaay zaay zaay nga bàyyi ci xel bu baax aywa bi ci topp xoolal bu baax te déglu bu baax siin siin siin lii la mag ñi daan wax bu njëkk siin su wow siin su wow mooy siin bu amul tomb siin nga bàyyi ci xel bu baax aywa bii nag la ñuy wax shiin su tooy mooy bi am ñetti tomb yi shiin shiin shiin day foor boo ko ta nga gis nga ash kon nga bàyyi ci xel shiin shiin aywa bi ci topp xoolal bu baax sood sood sood soo soo doo wax saa saa mais soo soo sood aywa bi ci topp dood dood dood nga bàyyi ci xel doo doo doo doo wax daa daa mais doo ci fin bi nag mook saadun ñoo bokk nuñ ciy taxawee dañ koy xalxala doo dood dood kon indilaatal ma daalun ma jaaraat ci yépp ngeen dégg aywa daal roo zaay سين شين صاد ضاد اها يعني انت باي خل بباخ باخ ايوه ما شاء الله في نك دانيو بغ ген خول بو باخ نالنتي جارال بن يون رك بوكو ديفه دغلو لين ngeen ngeen wax niñ ko waxe won ci bindu bu njëkk ba rek manam araf bu nekké ci njëlbeenu baat bi ak ci digg bi ak ci mujj gi niñ koy bindé du bok waaye niñ koy waxé benn la ñoy bok nuñ koy waxé dal zal ra zai dal ذال را زاي ايوا واخ لين اها اها واو ما شاء الله اها دا ما سوخلا كين كين تي يين كين تي ku wax ma dégg ku yëkkati loxoom jibril njaay waxal ma dégg aywa aha aha macha allah macha allah ñu jàll ci bi ci topp aywa fiit xool leen bu baax te déglu ma bu baax ma jaaral leen ci benn yoon rek ngeen xool bu baax nag niñ ko waxee woon rek xaraf bu nekkee ci njëlbeenu baat gi ak ci digg bi ak ci mujj gi niñ koy binde léeg-léeg day wuute mais niñ koy jànge benn benn njàngin mi la aywa déglu leen te xool siin sood dood Seen, Sheen, Sod, Dod, Seen, Sheen, Sod, Dod. aywa wax leen ma dégg yéen ñépp laa wax aywa ci kaw mhm. ngeen di wax bu baax mhm. mhm. macha allah aywa kuy yëkkati loxoom kuy wax ci yéen kan aywa soxna faamaloo soxna lo tay jigen la yi paase yeb gor moy tare rek ah bismillah soxna faama déglu len bu bax limi wax nak ay wa hmm shin ma sha allah aywa tabaarakallah masya allah yow da mel ni yaa gën a ñi de ah da mel ya yaa jang goor ñi de tabarakallah masha allah aywa fi nak tamit ngeen xol bu baax waaw fi xol leen bu baax dañoo jaxase arafi bu ko defee ku yëkkati loxoom rek ياو كان سخنا آمنة كبه أيوة وخال ما ديك أها بيتي توب أها أها ما شاء الله ما شاء الله أكن أكن مختار بو أيوة سن مختار وخلت كاو ديق أيوة أها أيوة أيوة أها ما شاء الله Ya maktar mbub tabarakallah, kon ni rek la de len ci bàyyi xel wa xoolaat len bi xol len bu baax gis ngeen bu baax ni mu mel niñ ko bindé arafin ak niñ ko ay wa kan moy wax ku yëkkati loxom soxna xodijatu sàmb aywa waxal ma dégg ci kaw aywa aywa sood aywa ضاد macha allah soxna Khadija tabaarakallah ak kan kan waay kan moo ci loxoom ci góor ñi tey góor laa soxla de dong bu góor laa soxla aywa abu bakrin loo tabaarakallah waxal ma dégg سين مهم. أيوة مهم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله نيلة أيوة فينك nag بباخ أها في, baax aha liñ soxla mooy ngeen bind ko jël leen kaye ak big alliwa ak xalima ak seen daa wala seen ardoise ak cré xool leen bu baax daal niñ ko bindee ngeen xool bu baax daal niñ ko bindee mu am benn tomb ci kaw ngeen xool roo niñ ko bindee amul tomb ngeen xool zaay niñ ko binde mu am benn tomb ci kaw ah? diggante ñaari tomb yi ngeen di gis hmm? diggante ñaari tomb yi ngeen di gis xool leen bu baax xaraf bu ne foofu ngeen koy dugal foofu ngeen koy bind ngeen bind ko nag mbind mu dijji mu leer kuy jàng bind mbind mi day rëy soo ko dee sewal di ko tuutal rek doo gaaw a mën bind mbind mu rëy mu ngand ngeen koy def bu leer nañ aywa ngeen bind ko nag te ñëw wan ma ko aywa xool leen bi ci des aha fii ngeen xool bu baax siin niñ ko binde mu am ñetti bëñ daa wàcc ci suuf def nii ah gis nga ko shiin moom it noonu mu am ñett tomb ci kaw aha sood gis nga moom it ñu def ko nii ah def ko nii gis nga ko dood moom it ñu def ko nii def ko nii waaye mu am benn tomb ci kaw momit it koy xol ben bu ne ni mu mel ci digeunte ñaari tomb yi ngeen bind ko fofu bind mu rëy mu dijj mu leer nañ te ñëw wan mako bu ko defee ngeen boole mën a jàng mën a bind maasha allah tabaarakallah baarakallahu fiikum yàlla na yàlla defal ñu tawfiq defal leen ko subhanaka allahuma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu